mbokki jullit yi mbokki Sénégal euh, seen mbokk imaam Xaadim Ndiaye mi ngi leen di yëgal conférence bu rëy bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci parcelle Assainies ci unité 6 ci bayaalu jumaa ji jàkkaarloo kër Serigne Mourtada Mbacke conférence bi nag mi ngi nekk samedi bii di ñëw muy le premier ci weeru juin muy tarim alxuraan mi ngi amal at mu nekk te bii nag mooy dix-huitième édition bi ñu tudde ko nag nitu yàlla bu baax ba El Hadji Mame añ suñaan ca man moom lañ jagleel bis bi waaye lan ci teewaayu ak ci ndigalul Serigne Bachirou Bàkke moom Serigne Fàllu waaye nag gan gi nag ki nga xam ne mooy invité d'honneur bi mooy alxaaji Ablaye Dia mi nga xam ne mooy directeuru Sénico Sénico nag ku ko dégg rek da nga sa xel dana dem ci alquran ñi ngi ci woo mboolem jullit yi yëpp xale yi war faatari alquran programme bi nag di tàmbali neuf heures ci suba ba ñeenti waxtu ci ngoon mooy balaa tàkkusaan incha allah bëgg nañ mu jeex ñi ngi ci woo mbooleem jullit yëpp ànd ak woote boobu nag woy juri gone yi ak gone yi ci seen bopp ak donga yi jaaroon ci daara ji ba génn noo ànd nun yëpp di woo mboolem jullit yi ngir ñëw ji conférence boobu nga xam ne ñoo ngi koy amal le premier ci weeru juin fii ci bayaalu jàkkay unité 6 kon nag bu ko kenn tardé inchaa allahu yal na yàlla fay leen yiw képp ku fi teewit yal na yàlla faj say aajo zahiran wa batinan wassalaamu aleykum sadaqa allahu